te defu ko dara lu ngir bëgg ñu gën koo jàppale gën koo taxaw kon nag noo ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal ko ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi sans borom sàmm leen teg ci ñoom loxo ba nu yeggale noo ngi lay jéggalu nag bu baax a baax kàddu yi waaye li mu yéenee wax moom ëpp na li ci mbooloo bi nu bàyyi ñu dox incha allah. am dafa am rek lu may séeréer booroon kii fi teew muy Serigne Abdourahmane na ñëpp xam ni sëñ am di Modou Mbend mii di xalifa Baye Faye ci moom la jéggul woon waaye keroog la ne ko dama jébbalu ci xalifa sëñ Tuubaa loolu dafa maa marqué rek wax naa ko ci télévision bi wax naa ko fépp mais xoolal loolu xalifa mu toll nii mu leer na ni kuy Baay Faal mooy sa kilifa boo ko yilifee yilif Baay Faal yëpp nga ne ko demal sëñ Tuubaa transféré sa ab taalibe bi nag Cheikh Ibrahima Fall ko defoon ci sëñ ma soxla jox ko sama am nga defaat loolu mbàkki nit dinaa ko seere jërëjëf. kon yàlla nga ñaanal borom amin amin amiin amiin ak borom tey amiin amiin amiin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke président Bougane sagu na lool xolam sedd na sëñ Moussa Mbacke Xaadim Awa Ba sëñ Maam Cheikh Mbacke ay yées moom tamit ak sëñ jotaay bi sëñ am sëñ Moussa Diop daal wax nañ ne mi ngi ci yoon wi jërëjëf Mbacke sagal nga président Bougane xelam dal na Mbacke suuf si nit na lool waaye xelam dal na li mu wëlbati koo yem ci sa jëmm gi tedd ji la koy fàttali sama gi baax la Serigne Mbacke Mouhamed xelam dal na. koy nurale ak waajuram sëriñ Abdourahmane moom sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma sëriñ Youssouf ak sëriñ Omar Bara Gaye nee leen ndax seen jotaay yi day wute na ko jotaay sëriñ Mbacke nee na xolam sell na xelam bëri naa dal sëñ daal di jërëjëf Mbacke ñu ngi si yàlla baax na sëñ xaalis waaw ba fii sëriñ bi sëñ ku ne yaa may déglu kaay wuyu sëriñ am sëriñ Hamidou Diop ku ne yaa ngi may déglu kaay nga wuyu sëriñ nañu nañu sécurité bi sëriñ baa ngi nii di génn nañu ko may sécurité bi sëriñ sécurité bi sëriñ baa ngi génn. bu ko defee ñu toogaat rek nañu toogaat ñun ñëpp nañ ñëpp toog rek dañu wàññi coow li maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax na ko sa yaay moo dem sa xarit moo dem sa féete moo dem nee na ko yaay jaaga nee na ko waali man sa mam laa de kii dem sa yaay moo dem sa xarit moo dem sa féete moo dem bu ñu mënee defar yoon bi rek nañu may yoon bi kilifa yi dañu bëgg a sànni kàddu sunu yaay jaaga moo yegg si ñu dimbali rek ñu may ko wax naa leen ni jullit àjjuma gi dafa xat te buñ deful lool rek waaye yees itam ñëw nañu bëgg a sànni dañoo bëgg a sànni carte nañu avancé nañu avancé ñu may nit ñi ndax kilifa yi dañu bëgg a sànni carte sécurité bi ngeen baal ma jëlal ma yaay jaaga rek mu toog sécurité bi jëlal leen ma yaay jaaga mu toog bu ñu ko deful rek yoon bi fii nit ñi dañu jàll. dañu may yaay jaaga mu toog. maa ngi leen di ñaan nañu may ñii ñu toog. day jël sama dugub sama si dinaa jël sama fan la war a jël. man gars yi ñëw gars yi ñëw mu ngi nii di doog a yegsi. jàkkaarloog doomam waali. jàkkaarloog bugaan. mu ngi wax léegi waali ni ko. yow yaa ñàkk sa yaay. yow yaa ñàkk sa xarit. ko yow yaa ñàkk sa yaay ndax mooy sa féete bugaan nee na nañu ko dimbali ñu may ko yaay jaaga ak waali ñu toog nañu leen may ñu toog nañu leen may ñu toog ñu toogoon fii ñu may yaay jaaga mu toog sëñ Xaadim Samba moom itam Serigne Dame Diouf Lambaye yegg si na. sécurité bi ngeen jàppale ñu rek. Bougane xalifa bu Thiénaba sa papa itam mu ngi nii di yegg si ñu bàyyi ko rek mu toog Bougane bi sa wéy nañu toog Sadio Sango ngi nii di jàngale si neeram mu ngi nii maa ko gënte yàlla dogal na ne bi mu gënee àdduna bés bi bi mu dellu see xar mi ñu rendi na bi mu fes waaye nee mu ngi di bugaan mu liggéey ak man ci Sud FM ba mu def liggéey ba ñu def liggéey Thank you.

yàlla rek moo def lii. analyse as mooy oto bi as oto baa ngi ne as xool doo arrière maamam bi jur yaayam moo ko gis. may leen ma ànd ak moom may leen ma ànd ak moom may leen ma ànd ak moom. maama ma ngi nii jooy na jooy na pour jooy. grand grand dama jëlee nii fii waaye booy jógaleen noonu waaye. ah tamit ah. maam jógal maam jógal maam jógal. bàyyi leen ko maam bàyyi leen ko maam maam sa sec. lan la ñu tuuti ci téléphone yi. lan la ñu tuuti tamit gars yi ah. di grand mën nañu dem tuddi téléphone yi waay baax na maam baax na maam cër rek mu ñëw may ko ndox mayal mer ndox. defal ko ndox defal kaay bi balaa balaa ñu waaw baax na xool def leen nii def. Waly. Waly looy jooy. Waly looy jooy boo jooyee ne nii jooy Waly. boo jooyee ne nii jooy. dugal dugal dugal rek dugal dugal waaw